ngeen na ngeen ko teewlu bu baax a baax nga ni nga ni tàccul leen le président Ousmane Sonko bu baax a baax président Ousmane Koungheul mu ngi lay déglu. asalaamaaleykum mbokki Koungheul ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte dellusiwaat fii juróom benn weer après élection présidentielle bi di nuyu di ziar kilifa diine yépp ndax Koungheul di di dëkku diine la bëri ay foyers religieux benn bu nekk ci ñoom ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko gërëmit ci gunge bi ci ñaan yi ndax lépp yéeg nañ ko. bu loolu soo man maa fi jaaroon ci élection présidentielle ndax xam ngeen ni man ak président Diomaye dañoo xaajale woon affaire yi kenn ku nekk am direction boo jël. bi ma fi jaaree guddi laa romb Koungheul guddi mbooloo mi takk woon lool macha allah comme nii mu takkoo tey léegi seen candidat wax na ko Koungheul nag daf ñoo ameel bor donte nag dañuy dellu sant yàlla ndax soo seetee élection yu njëkk yi fi daan def lañ fi doon am ci voix néewoon na lool lool lool lool. ci région yi gënoon a wala département yi gënoon a néew voix la bokk kon suñ ñëwee ba élection présidentielle ñële am fi vingt trois mille voix ñun ñu am fi vingt et vingt et une mille voix ak lu tegu boo seetee écart bi su matee mille voix ca la yem kon def nañu jéego yu rëy rëy rëy waaye peut mieux faire la tubaab di wax te nag révolution bi nga xam ne door na Sénégal dëkk bu ne war na fexe ba du ñu ne moom moo desoon gannaaw ndax suñ nee luy defar Sénégal taxaw na Koungheul war naa bañ ñu ne Casamance ak Ndar ak Mbacké ak Ndakaaru ak ñu mel noonu ñoo ko def waaye Koungheul loxoom dugg ci woon est-ce di ngeen ko nangu ndax mënuñu nag saa ñu ñëwee ngeen jox ñu seen jàmbat ne Koungheul bokk na ci département yi ñu gën a négligé département bu ñu gën a négligé li ko war li mu war a régler problème am mooy ñi ko teg ci coono googu bu élection jotee ñu bañ koo jox voix kon bu dee ñoom jox nañ ko voix day mel ni jàmbat gi nag dafa méngoowul ak li nit ñi di li ñuy wax ñoom ni moom la ñu dund dafa méngoowul ak la ñu bëgg dëgg dëgg dëgg dañuy waxtaan rek ndax man xam ngeen man sama politique mooy damay bëgg suma ma jàkkaarloog yéen ngeen wax ma dëgg ma wax leen dëgg man nekkuma ci politique gu ndaxe mbaay ñi fi teew ñëpp amul kenn koo xam ne dañ laa jox xaalis pour nga ñëw kon gëm-gëm moo leen fi andi réew nag waxante dëgg moo koy defar yéen waa Koungheul da ngeen am responsabilité def remontada ndax nag li ëpp ci département Sénégal yi raw nañ leen te bañ leen di raw ñii raw nañ leen ci élection locale ya mën naa ne sax am na ñoo xam ne raw nañ leen ci présidentielle 2019 ñii ci élection locale 2022 ñii ci élection législative 2022 ñeneen yi ci élection présidentielle 2024 ñu ñëw nag ci législative 2024 kenn ku nekk war ne nag su dee gëm naa ne lii ma gis mooy jëmale Sénégal fa ñu bëggoon waruñu bu ñuy lim dëkk yi nekkoon ci gannaaw ñu tudd ci sama dëkk ñun nag ñun dañ ñoo jàngal état ñun politique boolewuñu ak état fa ñuy jàngalee les plus hauts fonctionnaires fa ñu jàngee état kon xam nañu état li may wax nii tekkiwul ëllëg bu ñu ne woon Koungheul voteluñu ñu wala amuñu fi majorité du teyit li ñu war a def Koungheul nañ ko def ba mu mat sëkk ndax bu la yàlla fale yaa njaboote ñëpp yaay président ñëpp yaay premier ministre ñëpp amoo sañ-sañ ne kii bokkuma ak moom duma fa def loolu nañ ko bàyyi gaaya ñoom noonu lañ doon defee waaye dina gën a baax bu dee kenn ku nekk nag la ñëpp di dajale def effort pour jëm kanam kenn ku ne naa ci dugal sama loxo boobu lay gën a baaxee la ca des nag jàmbat yi xam nañ ko juróom benn weer lañ defagum ci réew mi Sénégal ren am na 64 ans 64 ans 6 mois ñaata la 64 ans yow mathématicien bi. moins de un dixième ñun ca la ñu doxalagum waaye ci li mu gàtt gàtt gàtt ak liñ fi fekk ci yàqute ak ni ñu def réew mi nu mu gàtt gàtt am na ay actes ñu posé yoo xam ne ku am seetlu ta xam tuuti nguur di nga xam ndax ñii fa ñu jëm baax na am déet wax nañu léegi wax nañu léegi duma wax sax ci li ñu def pour leeral réew mi niñ koy réewoon waaye damay wax ci li ñu def pour yi nga xam ne jàmpoon na ñu fekk ko fi lu mel ni inondation lu mel ni immigration clandestine lu mel ni yeneen ak yeneen yu mel noonu lan lañ ci def mbay mi lan lañ ci def am na léegi ku wax mbay mbay mi yàq nañ ko depuis des années waaye koy waxal yàlla di nga xam ne bi ñuy toog ñun mois d'avril ak bi ñuy commencer campagne agricole bi muy mois de juin muy ñaari weer ren béykat yëpp jotonoon nañu seen engrais ak seen jiw loolu kañ la gëj am ci senegal kañ la am ci Sénégal ren béykat bu ne jot na ci engrais lu mu musut a jot ci engrais lool kañ la gëj am ci senegal fay nañu bor yi ñu fi fekkoon muy boru producteur muy boru intermédiaire yi fay nañu quarante cinquante quatre milliards ci bor fan yii fayaat nañu quinze milliards te am na dix yoo xam ne mi ngi en ñu ko war a fay kon kuy bay rek ren xam nga ni ci diir bu gàtt def nañ ci lu bëree bëree bëri te loolu nag lancement kese la nañu dox ba année prochaine ngeen gisal seen bopp incha allah. ndax réew man dama yàgg wax ni réew mbay ak càmm ak napp ñooy développé réew ak li nga moom ci ay ressources naturel muy phosphate bi muy zircon muy or muy gaz bi nga téel ko sa bopp boo defee loolu ba pare ngay doog a taxawal ay industrie yuy transformé directeur général Sonacos bu bees bi nga xam ne nommé nañ ko mois de juin lañ ko nommé mois de juin waaye Sonacos Ziguinchor bi nga xam ne ay at a ngi nii tàkkul ren yéen keroog gis ngeen tàkk taal nañu moteur gi ba ren jii dina liggéey comme yeneen Sonacos si te li mu proposé moom ndax wax nañu ndax dina ñu jënd gerte gi am déet waa xam nga sénégalais léeg dafay neex a nax politiciens yooyu di dem ci mbaykat baykat yi naan leen état bi du jënd du jënd seen mbay ñoom ñoo doon dem ci àll bi naan leen Ousmane Sonko terroriste la Ousmane Sonko indépendantiste la Ousmane Sonko bëggul réew mi waaw léegi yàlla jaarale na seen loxo ñu teg réew mi suñu loxo depuis juróom benni weer ndax loolu ñoo doon wax gis ngeen ko fi kon sénégalais si boppam yéen ñi fi teew yeewu ngeen taxu leen ma wax waaye ba léegi am nay sénégalais yu yomba nax yu yomba nax ñu ñëw nit wax leen rek gëm nañ ko waa ban état moo ñëwee ban état ci àdduna moo ñëwee say baykat bay ba noppi nga ne sama yoon newul ci la ñu bay état boobu mooy dafa bëgg xanaa du yeggali mandaam kon am na loo xam ne xel mu mënu ko nangu ci fan yi di ñëw dinañ leen wax ci ban prix la ñuy jëndee gerte gi parce que ñu ngi koy liggéey dañ koo bëgg liggéey ci anam goo xam ne baykat bu ne dina gis boppam ci li ñuy jëndee gerte gi directeur général Sonacos bi dafa ma proposé dara mu ne ma ren bugguma ñu bàyyi chinois yi di jënd gerte bi dama bugg gerte gi yëpp ministère des finance teg benn système de financement man Sonacos ma jënd gerte gi yëpp ñu seet liñ ci soxla pour suñuy usine la ca des nag moo xam chinois moo xam japonais la ñu soxlawul ñu jaay ko kon ñu dalal xelu ñëpp ni gerte gi amul benn kilogramme gerte buy des ci loxo baykat bu dee bëgg na ko jaay te dinañ ko jaay ci njëg goo xam ne njëggu jaadu la te ñun suñu mbébét suñu mbébét du nekk fii nit ñi je bay gerte jaay ko ñu jël gerte génne réew mi chinois yi defar ko seen dëkk ñëwaat di ñu ko jaay lu ñu jëndee woon kilo 300 dañu ko jaay ñun kilo 1000 francs loolu du suñu mbébét moo tax pôle pôle centre bii. pôle de développement centre bi nga xam ne moo boole Kaffrine ak Fatick ak Kaolack agropole bi ñu fi bëgg a tabax agropole bi ñu fi bëgg a taxawal moom ñu ngi ko fas yéene def fii ci Kaffrine nga xam ne lépp lu ñuy bay fii du gerte gi rek de dugub gaa ngi fi mboq baa ngi fi yeneen yëpp ñu mën ko di transformer fii def ci valeur ajoutée la soxla suñu consommation ñu consommer la ca des ñu génne ko réew mi waaye da koy génne ci anam boo xam ne lu doon jar fukk di nga ko jaayee ñeent fukk noonu lañuy ñuy tabaxee réew kon ci lii ci lii lañ leen woo ci lañ bëgg a ànd ak yéen te ñëw naa fi tey gëm naa ni dinaa fi ñëwaat en tant que premier ministre ci samay tournée incha allah waaye balaa ma fiy ñëwaat ci beneen tour balaa ma fiy ñëwaat ci cadre élection xanaa peut-être 2029 lay doon ci élection présidentielle ñuy ànd def suñu campagne waaye voilà waaye waa gars yi def nañ calcul bi nee nañ ñun bi ñu toogee léegi bu dee 120 la ñu waroon calculer indépendance ak léegi ñun benn lañ ci 1 sur 120 6 mois yi ñu jot a defagum ci 6 mois yooyu ñu liggéey ci lii ci mbay mi te noonu ci liggéeyee lu mel noonu feneen ak feneen. ma ne su ma fi dellu siwaat ci élection amaana élection présidentielle 2029 lay doon incha allah waaye dinaa fi dellu siwaat en que premier ministre ñu daje toog waxtaan ci pôle bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci pôle centre bu ko defee bu ñuy dellu si 2029 di ngeen ñu wax ndax li ñu waxante woon a yéen liggéey nañ ko am déet buñ ko deful nee la ñu fi ñukk ngeen votel keneen parce que loolu rek mooy politique ba tax nag honorable honorable wax na lu jëm ci ci càmm gi moom sama maam la ndax man samay maam ay pël lañu càmm lañu gën a xam ci mbay càmm gi bokk na ci suñuy préoccupation yu gën a rëy nee nañ leen ginnaaw bi ñu génnee les axes ñeenti axes yi dañ leen proposé ay filières am na benn filière bu ñu tuddee filière cuir et viande cuir et viande ndax Sénégal d'abord li ñuy li ñuy càmm tuuti na ndax war suñu toog di jéggaani xaru tabaski ci yeneen réew Sénégal war naa mun a produire xaram ba mat sëkk waaye li néew li ñuy produire la ciy yàqu bëri na der bi der bi li ciy yàqu ci àll bi kenn xamul nu mu toll meew mi la ciy yàqu bëri na te pourtant chaque année yu exporte des centaines de milliers de tonnes de lait te pourtant dañuy tuur meew fii ci àll bi parce que amul unité de conservation amul fu ñu ko mën a seddalee ba du yàqu moo tax ñun yooyu mooy suñu priorité ñu jël ko benn filière carrément étudier une politique sur la filière cuir et peau boo xam ne dinañ ko dérouler ci juróomi at yi di ñëw kuy bay rek diñ ci gis sa njëriñ bu soobee yàlla kon su ma fi toogoon di wax ci programme mun nañ fi toog ba xaaju guddi te meeting baa ngi xaar fële ca Kaolack waaye mbokki Koungheul ndax pare ngeen ndax pare ngeen ndax pare ngeen pour jox président Bassirou Diomaye fay majorité bu dëgër pour mu mën a gouverner mun a voter loi yi muy changer réew mi mun a voter budget bi mu bëgg est-ce loolu pare ngeen ci est que jàpp ngeen ni jaadu na ñu fal président juróom benn weer ci gannaaw ba pare bu ko xañ assemblée nationale bu mu war a gouverner est-ce d'accord ngeen ci moo tax léegi léegi doyen Boubacar Camara ne leen élection bi ni de ni ni élection mars 2024 amoon amee woon solo noonu la bii amee solo ndax bii bu ngeen falul suñu ñaari député yi yokk ay voix ci liste nationale dafa mel ni dañoo joxe bopp rocc loxo te góor du def loolu kon li ñuy permettre ñu def loolu bokk na ci na jeunes yi dem jëli carte électeurs yi ku ci jëlagul carte am demal nga jëli ko parce que carte nag mooy dem élection ah. ndaje bi rafet na lool waaye bu dee am na ku ne fii carte am nekk ci préfecture jëliwu ko amala ñu njëriñ parce keroog mënul bokk ci ñuy jox président Bassirou Diomaye majorité jox nañ ñu majorité bu confortable ñu jublu ci liggéey bi ndax gis ngeen balaa ñuy tas assemblée lan ngeen gisoon ci assemblée bi lan ngeen fa gisoon mooy ñoo xam ne essayer galgal état essayer tere nit ñi liggéey loolu moom lañ fi nekkee woon est-ce bu ngeen blocage am ci Sénégal kon. na ngeen ñu jox majorité bu confortable li ca des contrat bi ñu am ak yéen bés bu ne semaine bu ne weer wu ne at wu ne ba juróomi at yi jeex di ngeen gis ni ñun liggéey rek ñu tax a jóg ñun jël xaalisu réew mi taxuñoo jóg soxlawuñu xaalisu kenn lañu yàlla may doy nañu doylu nañ ci bëgguñu riba dugg ci li ñu yóbbu suñu famille liggéey moo ñu tax a jóg ak jàppale ndaw